tonnerre nuyu naa. fay naa la doom nday. ci loo ne. maa ngi si la ma newoon rek. waaw lan nga newoo. maa ngi sama entraînement rek nekk sama ruq rek nekk sama entraînement waaw. xam nañu tey signature moo la fi andi. waaw tey première jàkkaarloo face face ma ak Dame Sène moom fi indi. waaw Sène la daa tàmm daaj paquet. nga dem du man a Dame Sène dafa tàmm daaj paquet nga dugg ci moom. nee naa woo bàyyi ngaa daaj doo doo daaj. nee naa woo jour combat bi doo niil doo daan. combat bi du ci daaj paquet. bàyyi naa daaji sax beneen combat sax du daaji. tonnerre nag tonnerre bu ñu waxtaanee tonnerre dafa mel ne nga xaw a wàcc parce que tonnerre Papa Sow tonnerre keneen ak keneen ku ne nga wàcc ba ci Dame Sène la moo dugal ci Dame Sène. waaw parce que comme mag ñi nangul ñu bëre yow nga bëre ndaw ñi rek den foog nga jëlaat ndaw ñi wanawaat sa bopp loolu rek moo tax ma jël Dame Sène mais daa Dame Sène tamit dafa naa bëre moom. soo bëree ndaw doo bëre ndaw moo xamante ne da nga ciy jaar jàll nga xool fi mu gën a méttee nga tànn foofu. waaw parce que foofu la ñuy xamee jàmbaar jàmbaar da ngay xool fu jaar fa mais doo xool fu nooy nepp nga jaar fa man sama sama lépp a métti waaw. mais bu ñu xool moo la xaw a sut est-ce du la xaw a handicapé tuuti. Elton moomu sut boo ma bëree Elton moomu ma bëree sut loolu lu si daan foofu lay daaxee sax foofu lay daaxee foofu lay gën a neexee. est-ce que gis tonnerre bañ daan gis si xeex tonnerre bañ daan gis si bëre tonnerre bañ daan gis si fom est-ce que mën nañu koo gis si tonnerre bi. dinañ gis incha allah bu war a bu ko gis yëpp. nañ gisaat beneen tonnerre bees tax. lan ngay a wax fan sa tonnerre. ah nañu ñaanal waa axlu làmb yëpp muy promoteurs yi muy journalistes mbëri yàlla may leen jàmm rek may tamit ah, bépp amateur bi ñëw di seetaan sa mbër rek nga ñëw si yar ak teggin di wax ni non violence sa mbër yëpp wax kon nañu suñu supporters yi jàppale waaw di ñaan yàlla yàlla may ma ndam si kaw daam seen jël bu rëy rëy rëy kontaan naa maa la gën a kontaan jërëjëf muy bëre xaar moo bëre loolu xam na moom pour xam ne dama manqué waxtaan bi ñëwee moom. nga liggéey. ma def li ko war. wallaay wax moom ma def li ko war. xale la muy jéem a gën. waaw moom ma def li ko war. ba ñu bëre ba ñu di yàmb di di yàmb. loolu dara. dara bu bëree. ma gën a ko. Nokia nuyu naa. waaw fay naa lu baax a baax. ci loolu ne. sant yàlla xamuñ. daa mel ni face to face moo la fi andi. waaw noonu la demee nag effectivement face to face moo ma fi andi waaw. sa diggante ak Bécaye. waaw Bécaye loolu la wax de. nga génn parcelle duggaat parcelle lu tax loolu. lamb la rek. maa ngi fi pour ñëpp lamb la rek xëy na adversaire bi daa nekkoon côté boobu waaw. sa combat ñu si bëri xàmmeewuñu est-ce que Nokia ba ñoon xamoon mën nañ koo gisaat ci bés bi waaw sant rek lamb la rek man maa ngi si lamb saabu ma jóge ànd ak ñi ma war a àndal ku ci mel ni Malick mii saa bu ñu waajee li ñu waajee li ci des da koy bàyyi si loxo yàlla quoi waaw lamb la rek comme yeneen lamb yu ko Bécaye weex na de Nokia ngay waxal de dama ne Bécaye weex na de instant yi man ci wax dama war a jëf gaa yi gis te ci kàttanu yàlla xam dara incha allah le 24 juillet. am nga bor bi nga amee say supporters. dégguma xam nga boor bi nga amee say supporter xam naa ko baax a baax instant bu ma tëddee sax du ma nelaw ba tax loolu man dama di ndaanaan barke alxuraan karim gars yi du ma seen morom mais xëy na ni muy demee la ak yàkkam di yaa ma gën a xam mais ci kàttanu yàlla le 24 dinañu gis beneen nu koy incha allah looy wax béykat di ko ñaanal jàmm rek ba suur ba incha allah loolu kese laa koy wax. maa ngi lay wax Baol Baol wax ñoom yëpp ñu waaj ak seen doomu day am na combat muy Nokia di maa leen di woo sama combat bi amaat naa combat man ak Bégaay le 24 juillet quoi di ci woo bool bool yëpp di woo xam sama waa secteur waa Kër Ndiaye Lo Tëngéej bàyyi ma fenn waa extérieur parce que man maay mbiru gars leen wax ñu waaj le 24 incha allah. Bégaay nuyu naa la. waaw fay naa la nga yëpp. ah Nokia duggoon parcelle génnaat parcelle duggaat parcelle lan moo duggoon ci Nokia. day génnaat parcelle. Hmm? waaw avant tout ginnaaw ma sant yàlla di sant sama ñaari waajur di sant xam nga ñaan sama doomu ndey Guiro Seras suñu borom defal ko ndam ak formu jar di ñaan waa Pato ñëpp ku ci am combat suñu borom defal la ndam waaw. man maa dugg la parce que xam morom mënu ma leen jeexal du ko huit combat xam nga say morom bëri ko say morom. eh doy na quoi grand morom may sàmm rek waaw morom ma jël ko te grand frère bu baax la. xam nga su mel ndogaale maanaam dañ ko soxla si làmb ñun booy yi. xam nga gisoo sa combat paas est-ce que ko gis si combat bi xeex bu métti bëre bu métti est-ce que mën nañ ko jëlee gis. non bii mooy raw bii mooy raw bu dëgëree ba moom yaa ko neexal ak jëm ne si. nee bee paase daa juumoon te bii day ñëw rek rectifier dem yoon. day xaañu rek du def dara maa def lépp maay xale maa def lépp na taxaw déglu ma rek. xool naa naa maa ngi leen wala bu kay loolu ma daan la kay loolu ma daan la kay loolu ma daan You won't know why. liggéey bi si kanam daam daam xoolal xale yi ñooy si kanam sama xale yi xale yi xale yi xale yi xale yi